aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina muhammadil makin wa ala wa sahbihi wa xadimihi sabir dama tamkin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi ñuy seetaan mbokki taalibé yi leen di nuyu noo ngi leen di ziare di leen jaajëfal jiital ci nuyu bi ziare bi nag Cheikh Amadou di ko ñaan mu yàgg fi lool ci wér di ko ñaanal borom atti bi ñu nekk di Cheikh Ahmadul Mokhtar waaye njabootu Cheikh Khadim gépp di am bu baax rek ci dajawaat buñ dajawaat ci jataay yu mel nii nga xam ko amal saa buñ dëg dëgmalee bis bu màgg bii di bisub xisroon muharram jataay yooyu ñu ñu baaxoo def nag ngir waaj ngir teetoo ko màggal gi kon ci lañ ñëwaat ñi tey muy benn ci jataay yooyu incha allah jataay bi nag ñu ngi war koo séq ñaari borom xam-xam di sëñ bàcc si lëj sama wetu di waaye ak sëñ Basiru Sekk ñu war a waxtaanee tomb bu am solo bu yitteel tomb bi nag jëm ci wàllu yar yar nag mbokk yi suñ ko waxee dañuy xam ne lu am solo la waaye rawatina ci lislaam waaye rawatina ci yoonu murit waaye rawatina jamono bi ñu toll. kon ñu bëgg a fàttali yar bi nga xam ni Cheikh Ahmadou Moustapha maanaa daan na ko yare ci ak njabootam waaye ci ay taalibeem waaye sax ci jullit yëpp rek far ñu jàngataat ko ngir fàttaliwaat ko nit ñi ndax booy xool jamono bi ñu toll. jamono soxla woon na ko lool boo ko defee ne kon incha allah xam naa sëriñ Basiirou sekk la ñuy njëkk àndal xam naa incha allah nuyoo bi xam naa incha allah moog laaj bi dañuy ànd kon sëñ Basiirou ñu la doon laaj rek kon ba ñu ñëw ci dëgg-dëgg Cheikh Moustapha ak noonu ba mu yare waaye dañu bëggoon a xam yar darajaam ci lislaam maanaam lislaam nan la gisee yar ci jullit ñi. masbillah ina walillah ma tawfiqi ila billah bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala bokk yi nuy déglu te dinu seetaan ñu ngi leen di nuyu gën ngaa seetlu nuyoo ci barab bu tedd bi di kër Cheikh Mouhamadoul Moustapha ci waajtaay yi nga xam ne daa nañ ko def ci bis bi saa bu dëgmalee euh, ngir tënk nag Serigne Cheikh ci laaj bi nga ma laaj ci lislaam nam gisa yar lislaam léppam yar la àddina li koy tax a baax lépp yar la ku dutub yonenti aaja nga yar yonent bi alayhi salaatu rek ma wax ne adabani rabbi wa ahsana tahdibi yàlla moo ma yarta rafetal na nu ma yare kurun moom i aaja ngeer euh, mu mel ni nag lislaam bi nga xamante ni ñu ngi koy taxawal yonent bi yar na saxaaba yi yarin woo xam ni Seydina Omar daana wax ni picc sax bu naawee ñu xam la ko tax naaw te yar bi ñu yar yonent bi alayhi salaatu yar moo na ko may àgg nañ ci lépp lislaam la ci ëpp njariñ ab yar lay doon ba ci ni nga xam ne noonu lañ daa toogee yonent bi alayhi salaatu wasalaam am noo xam ne daanañ ko defee lislaam moo alquran moo wàcc ndax dañ daan wax ca kaw ci wetu yonent bi di ko wooy yéen tur yi alquran ne leen déedéet dee leen suufeel seen kaddu bu ngeen toogee te ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ngeen dee wax moom na ngeen wax moom donc bu leen ko wooyee te yéen tur yi arab yi dañoo tàmmoon a wooye nit ci tur wu leen neex gën jaañaayu tur parce boo demee ca jeexitalu suuratu nuur alquran dafa wax sahaaba yi ne leen du caagin tur leen di neex ngeen di woy yonent bi dee leen ko woy tur yu rafet boo demee ci nax saabit mu wax na leen dee leen ko muñal ci yenn jotaay ak waxtu woo xam ne waxtu tëdd la maanaam am ñetti waxtu yoo xam ni daf ne nañ ko ormal yonent bi alayhi salaam bu ñu waxtu bu ñu cee ñëw ci waxtu woowu bokk na ci diggu njolloor bu ñu julee suba ba noppi ak gannaaw gee muy waxtu yoo xam ni ormay nit ki la loolu ku ñërul mënu koo xam arab yi ci bu njëkkoon nag dañ daa saabu lu neexee na bañaax ci yonent bi salaam buy waxtaanee ak waa kër ñu toog di déglu muy wax bu dee lekk ñu toog fa baddu man sax jëfandikoo ñam bi alxuraan wàcc yar leen ci loolu xamal leen ne leen nag nii dee su ko doxee ak yàlla yónni ak kilifa gu toll nii. kon loolu lis alxuraan moo njëkk a santaane yar euh, atabi sabila man anaaba ilaya foofu la yar génne kon lislaam léppam yar la bu fekkee nag dañoo dikk ci ngir tënk rek ci éducation bi nga xam ne mooy éducation islamique bu së sëriñ tubaa def ci Cheikh Mahamadul Moustapha su fekkee moom la ñu laaj muy sëñ Cheikh lu jamono soxla ndax seex Moustapha lépp lu nit am ba yëg boppam yàlla joxoon na ko ko waaye yar baa tax yëgu ko loolu yi nag li ko ko may mooy yar bu sëriñ Touba def ci moom te ndoonu lu gën ci nit it mooy bàyyi fi doom ju ñar te sëñ Touba xamoon na gannaawam na mi toll ak na mu war a toll moo taxoon mu teel ko waajal ci yar la ci jiitu nag mooy tànnal ko waajur woo xam ne wii ku xam nañu wuti lu baax la muy soxna Aminata Lo ndax ba nga xamee ne ma nga kër sëñ ma jëng faaloo bi sëriñ bi ganejee ka ko njëkkoon a yor te ni mbubb ma nañ ko ko setal am na ñeneen ñum fa nekkandooloon waaye ñañ ko sant dañ ne dañoo amul jot wala dañoo ne ci leneen bañ ko ko sante moom la mu njëkk a def seetal mbubb ma wéexum néegam sotti ko ci biir kon ku yàgg xam lu baax la xam nañ ko wuti kon lañ daloon xakim bañ ko andilee ndaw ne ko yaral na ko mu am juróom-ñaari at mooy leen yar ko wees na ñu andi ko am ñetti at mu ne ki yar ko wees na mu ne ko nag kon nu may def mu ne ko boo bëggee ma yaral soxnaam da ngay may danga koy tànnal day kon ma Mamadou Moussa foofu lañ tàmbalee ak moom. Euh, la ci toppit mooy sëriñ bi ni daan yare mooy daf lay xamal yàlla yàlla ku ko xamul mënoo yaru ndax loo yaru si ki boo ko gisul danga ko def waaye sëriñ Tuubaa da leen a teel a xamal yàlla def ci ñoom xam-xam def ci ñoom orma loolu nag mayoon na ko mu xam Serigne Touba lool ba man koo bàyyi xel saa su ne waaye itam mayoon na ko fit wu mag woo xam ni fit wa ci xam-xam lay lale ndax fit bu lalul ci xam-xam borom tasum réew moo tax seex Cheikh Moustapha dafa lale ci xam-xam waaye nag lale ci jom naka noonu itam lale ci orma ju mat sëkk nag yoo xam ni euh, bunt boo ci dem rek bàyyi woon na ko xel ndax laa yotti nuuru mahrifati nuuru waraihi xam gim xam Serigne Touba ak xam gim xam ak taalibe yàqu dara ci sariyaam loolu mooy mu tawasit mooy alkamal mooy mooy moo moo taxoon mu nekk kamal. dañuy wéyal sëñ Massamba si la moom yaakaar naa comme sëñ Mass sëñ Bàcci dégg nga kon ni ko sëñ Bass waxee ci wàllu yar maanaam am gi am solo ak ni ci alxuraan àddoo ak ni ak ni nga xam ni noonu la ci borom xam-xam yëpp waxee waaye mu mel ni kon yar dafa doon lu mun mënta ñàkk waaye mel ni kon bu ñu xool suñ jamono yi léegi jii dafa mel ni léegi yar dafa tumu rànki maanaam fañ ko daan séentu kenn gisatu ko fa. ca ci foo ko mën di tàmbalee léegi nag kon foofu suñu bàcc ginnaaw xëy na nuyóo bi day ànd ak laaj bi rek lislaam taxaw bi mu amoon ci yar ak lim ci jëmbët la ko tàmbalee ci yonte bi alayhi salaatu ak saxaaba ya ba ci gaa yu baax ya ba ci Cheikh Amadou Moustapha mii taxawaay bi mu ci taxaw bu ñëwee ba jamono nag mel ni dafa bëgg a wone leneen loolu lan moo ko lan moo ko waral suñu bàcc aoudu billahi samiil alim min iblis alcheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabi wa wala bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki lislaam yi ginnaaw ba nu sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mu dàq mbas mi ci réew mi te e, xéewale ab jàmm fu mu mën nekk di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mu wàcce ndoxum jàmm ci réew mi barakatu cheikhul xadim barke bërëb bu tedd bii mu mel ne jërëjëf sëñ cheikh li nga wax ci yar am na solo waaye sëñ sekk tabarkalla li mu wax ci yar tamit am na solo e, jàngale yar bi mag ñi nekkoon e, joxe Cheikh Moussa mu nekk namudaj mu nekk exemple e, ci yar bi ko Serigne Touba yar ak yar bi ko borom daaru yar li mu waxoon mu ne ba sunu bàyyi Ceerno dañoo jàngal ba ñu ne ar yar ñu ba ne nër léegi nag boo xoolee sunu jamono nun waaqe bi liy xew ci jamono ji moom ak loolu boo koy comparer sax eh, di leen jéem a niroole eh, da ngay dafay soree lool tey ndax eh, Serigne Mouhamadul Moustapha fañ ko jaarale mooy daara ci alquran jóge ca jàng sharia xam-xamu diine ba dégg ko lool ba géeju ca lool dund li alquran jàngale maanaam dund njubug alquran waaw dund njubug alquran inna haada alquran yahdi lillati ak aqwam ñoom dañ koo gëm gëm ne alquran fam fam leen jaarloo ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa foofu mooy jaaruwaay ba tey nag nun e, li indi jafe-jafe yépp mooy sunu yarukaay sunu yarukaay day yàqe day yàqe bokk na ca boo nee yar bi si fa am ma rek école daanaka mooy yarukaay bi gën a mag léegi gone gi léegi mayetuñ ko sax mu jàng alxuraan ci juróom-ñaari atam dañ koy inscrire école tubaab ba pare door a lijjanti nu muy def ba dabaatal alxuraan xam nga ne kooka kon fi mag ñi daan jaarale seenu njaboot bu mucc ñoom moom kaanu ilal uxra dawintilaaqi waa waajahu darrata bi talaaqi comme ni ko sëriñ bi waxee ci naaju qadaayil xaaj dañoo fase woon wujju àllaaxira wujju àllaaxira muy àdduna dañ koo fase woon jublu àllaaxira lépp lu leen di may ngërëmul yàlla di dunde lu lew di jaamu yàlla jaamu yàlla gu wér e ba pare yaru tege ci yoon te loola nit mënu koo def te du doon nitu yàlla tey nag moom gis nga sunu yar nun école moo ci jiitu école bi dafa am lu mu waroon a liggéey mbedd mi am lu mu war a liggéey ci yarub gone gi kër ga am lu mu war a liggéey ñoom ñëpp a démissionné ndax école bi dañ ko dañu dañu doon boole éducation dañ ne mooy e, at taalim wa tarbiya jàngale ak yare tey nag dañoo dindi tarbiya yar ne ne ne jàngalekat bi dañ laa jàngale loo rek waaye yaree loo wuñ la ñun jàngalekat yëpp xam nañ loolu bu dikkee ci mbedd mi sareet yi la fay fekk oto yi gis nga oto yi fukk fukk yeeg ñaar fukk ñaar fukk yeeg sareet yi eh, ku ci yéeg ak gone yi ñeme nañ laa saaga ak koo mën a doon waaw loolu tamit gis nga ne kon yar bi dafa man kër ga téléphone am la yor écran bu mag lañ koy lay tiim luy yàq yarub ndaw képp a cee nekk te ku ne xam na ni kon léegi sunu jamono nun euh, ji ñuy dund dañoo am problème pour yar njaboot gi par rapport ak mag ñi bii ab bi ñu doon dund ak ni ñu leen doon yare comme yàlla ak yàlla fi mu toll léegi la saaga sa bàyyi xew ci njaboot ci ci ci njaboot gi waxuma la yarub kii bi waaye bu dee ci murit gi booy xool at yi ñu génn ak at yi ñu nekk ci la ñu gis euh, gone gu génn di saaga ay juróom direct di leen tuumaal lu ne waaw nga xam ne léegi moom li xew kenn xamul lu mu doon te xam nañ li ko waral xam nañ ñoom ak yàqute am na yar amul waaye xam nañ eh, ñàkk yaru gi fa mu jóge ñàkk yaru gi fa mu jóge mooy yarkat yëpp dañoo démissionné dañoo démissionné ci yar bàyyee nit ki ak boppam muy xalaatal boppam jikko yi mag ñi yoroon comportement yi mag ñi yoroon jéemuñoo jéemuñu caa roy dara te gis nga sëriñ bi ni mu insisté ci loolu ci nax ju xadaayal xaaj te murid yi ñoo ko sàkkoon ci moom mu taalifal leen ko ngir ñu tegginu ngir ñu ami teggin wala wala taqul li ahadin kadabta aw qulta xayral xaq aw axtata wul wax kenn fen nga waaw ah. wala waxoo dëgg wala wala wala juum nga sax yooyu yooyu xeeti waxin yëpp sëriñ bi daf ko tere te tey gis nga ci réseaux sociaux yi léegi nit day taxaw kii di baayam direct mu taxaw wax ko lu ban loo xam ne kenn waru ko wax jàmbur sax ku kii sa kii sa wayjur wala kii sa kii sa kilifa te loola nag njaboot gi moom wala taalibe yi moom dañuy topp sëriñ si rek daanaka ni sëriñ si di yare seenum njaboot noonu la taalibe yi di yare seenum njaboot go njaboot gu ndaw gi nga xam ne ñooy ñooy ñooy kilifa yi gis nga éducation bi ni ñu leen di yare léegi ñeenti at nga dugal ko école jardin boog mu jóge fa dem école nga xam ne cycle boobu lay def ba doctorat mën naa bañ a mën naa bañ a dal mën naa bañ a dal baasit miim nga xam ne mën naa bañ a jaar ci daara te du doon problème kookit ñim jamonoonteel faaw ne moom la ñu mel ñim jamonoonte faaw ne moom lañu ñu mel mag ñi nag dañ leen a yaroon teg leen ci aw yoon waaw teg leen ci aw yoon tey am na ci ñoo xam ne seen doom yi ñu yóbbu daara moo yëta yéen mënalul dara gis nga problème bi fi xew bari dem bu ci sëñ daara boobu nga xam ne eh, daaraam kaso la dafa def euh, kaso boo xam ne pour gone yi tëla bi ñu ko dajjee fan yi nangam ak nangam waaye dangay gis ne li ci mbedd mee gën a garaaw ak li ci sareet yi ak li ci oto yi nga xam ne li nu wër lépp moom ñàkkub yar la ak ñàkki teggin loolu nag li ko waral mooy ñun suñu yaruwaay sunu dañoo pro programmé wut njaboot gi pour yar leen mag ñi nag dañoo programmé woon seenu njaboot ngir yar leen. sëñ Bass jërëjëf ndax dafa mel ni kon suñ jógee ci ni nga waxe mel ni kon yar farata la. ndax euh, lu ñu wax ni alxuraan moo ca àddu suñ borom moo ko wax kon day mel ni mënut a ñàkk waaye des ñuy dégg kon yarit ginnaaw bi ci alxuraan waxee yonent bi aleyhi salaatu wax ci waaye mel na ni dañ ciy dégg nit nii kon mboolem borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ni yar mënut a ñàkk yaakaar na sax seen xam daana wax naan lépp lu waay sàkku ci sàkkuwoo ko ci ab yar day mel ni loola dañ ko koy xañ waaw dañ dañ ko koy xañ yaakaar naa sax moo tax di wax naan. maanaam yaru mooy tax ñu fab nit ko teg ko ca kaw waaye ñàkk bu yar mooy tax ñu teggee nit ca kaw di ko caw yaakaar naa kon nag mel nga ne leeral nga nañu ni alxuraan àddoo ci yar waaye it ni hadis àddoo ci yar ak borom xam-xam yi yaakaar naa kon loolu moo tax mu mel ni Cheikh Moustapha it ñu jaaree ko foofu ci ab yar moom it ba nga xam ni kon am na yar bu mat sëkk bi nga xam ni moom lañ soxla ci nit mu mel nag kon des di bëgg xamaat kon Cheikh Moustapha kon bi yàlla dogalee mu jaar foofu moom ba am moom nan la doon yare ak njabootam ak yan misaal nga ñu ci mën a jox ci ay tànneef ci ñi nga xam ne da leen yar ak fan la jaar ak ñoom. jërëjëf euh, sëñ euh, Cheikh Fall bala ñuy dikk ci ak njabootam nu leen yar rek mooy ni mataleen dénkaay ni waajuram ci anam ga gën a rafet te diine jëmu ko état jëmu ko booba ñi fi nekk te yore wàllu àdduna jëmuñu ko loolu ci yar rek la ko mën a amee. ndax leneen loo ñu woon rek ñooñu am nañ ko waaye wan na leenum xel wan leen imaan wan leenu yar ci loolu nag yar bi ko sëñ baa yar ak mat gi mat moo tax ab yaram mu tàmbalee ko ci njabootuk boppam ci njabootuk boppam la tàmbalee ndax nit looy defalu jàmbur da koy tàmbalee ci sa bopp bu dee lu baax kon moom ci njabootuk boppam la tàmbalee yar naka noonu bi nga xamante ne bii ak mag ñi ko waroon bokk na ci lim leen daan wax koo mënta tax a liggéey mënu koo tax a jaamu yàlla na ngeen a tàggoo ndax ñaar yooyu mooy yoonu murid iyyaka nahmadu wa iyyaka nasta'in loolu ku ko teeloon a xam la ba ku ko bàyyi woon xel la ñim yaroon ñëpp it ci loolu lañ nekkoon yar na leen it ci njabootam teel leen a amal xam waaye biñ jàngee ba noppi ndax xam-xam bi rek doy na moo leen tërbiyal boppam muy sëñ Cheikh Gaynde Fatma ak sëñ Mbàkke maddina bi mu leen tërbiyalee boppam itam am na loo xam ne war na ci moom ndax nit daana def mu xaamara maanaam bu daan dem digg jàngi ci yeneen réew yi daaw fa dem ngir xam-xam waaye dafa daan dem ngir xame fa àddina ndax boo nekkee fi nga dëkk rek dana néew nga xam àddina waaye itam boo xamee ba noppi nag réew mi nga nekk war ngaa xam moo tax bi mu ñëwee mu yabal Serigne Cheikh Gaynde Fatma ma ko na nga jaare Kajoor génne Bawol ni Serigne Mbacke man na nga jaare Bawol génn si Kajoor ngir ngir lan ngir ngeen xam réew mi bañ noppee ca la yem mu yar leen ci ñu xam seeni bokk ngir ñu xam ñooy ñan ca lañ demee ci Serigne Omar Mbacke mu dénk leen dénkaaneem lu rëy la ne leen Cheikh Moustapha def na ci yéen li ko war mooy jàng na leen ba nga xam mooy leen ba ngeen yaru lan moo ci des nag mooy li gën ci sëriñ sëriñ boo xam ne ba gën ci sëriñ ci sëriñ si mooy koo xam ne saa boo ko jaxasoo boo jaxasoo moom gën koo bëgg li yées mooy sëriñ boo xam ne saa boo moom mën koo muñ defe naa kon loolu yàlla defe na leen ci tawfeex ba nga xam ne ñoom ku mas la jaxasoo ñoom mënatoo leen a ñàkk loolu nag la ca nekk mooy dañoo am njëriñal saahir ak njëriñul baatin dañ lay jëriñ fexe nañ ba kuñ jaxasool mën laa jariñ ci fànn yëpp loolu ma Moustapha moo ko def ci ñoom nga xam ne bi muy tàggoog ñoom ñoom mën nañoo yor am réew waxuma la ab dëkk naka noonu itam képp koo xam ne kii seex Cheikh Moustapha moo la yar foo mas dem dañ lay roy waaye dootoo roy kenn ndax li ngay jëlee ci moom day mat sëkk ndax sama waajur moo ma nettali ne yi ma gis ci moom ci moom laa ko njëkk a gisee ci moom laa ko mujj a gisee ci xalifa Sëriñ te téyel ñi mokkal jàngal boroom xam-xam yi séddale leen sa reer jàkk ji loolu mooy al Kamaliya ci loolu la defoon ak njabootam naka noonu itam maanaam bokk na ci yar bu matub yar nga fexe ba nit ki am kilifa fonk kilifaam loolu defoon na ko ci sëñ Cheikh defaan ma ak sëñ Mbacké Madina joxoon nañ joxante woon nañ war ma joo xam ni niiwaana doom di ko doom di ko jox baayam ci koo xam ne kii mag ak rakk la waaye ñi fi nekkoon sëñ waa joxoon nañ leen war ma ak cër boo xam ne bañ doon jox seex Cheikh Moustapha moom lañ xamewuñ ko bañ joxoon Cheikh Moustapha loolu yar bi leen Cheikh Moustapha yoroon moo tax ñu man ko loolu nag ba fiim ne nii mooy li nga xam ne moo téye yoon wi kon nag bu ñu demee ba muy xaw a mel ne luy naax saay dana laaj tuuti ñu delloosiwaat kan mooy Cheikh Moustapha ak li tax mu mel ni mel ndax bu du kon moom kat Touba du doon Touba te loolu lépp nag ci ab yaram ci lañ ci la ko amee. sëñ Bàcci kon day mel ni xëy na bu ñu jël ci laaj bi rek maa la ko waral laal day mel ni kon ñàkk guñ ñàkk dellu ci alxuraan euh, ñàkk guñ ñàkk dellu ci sunna ak ñàkk gu ñàkk a dellu ci njàngale mag ñi kon moo waral kon lii xew ndax yaakaar naa ni nga ko waxee euh, ginnaaw dañu war a dellu ci alxuraan ngir mën faa jëfee alxuraan. wala ñu dellu ci sunna wala njàngaleem mag ñi euh, ca ca kon dafa mel ni delluwaay bañ ci war a dellu moo des ca it ginnaaw ñooñu it fi nga xam ne ni ko waxee mooy fi ñu daan jëlee ab yar mooy ci jànguwaay yi kon mel na ni foofu moom jafe foofu nag kon dafa mel ni bu dee maanaam fi ñu waroon nañ lijjantee mbir mi mu am jafe-jafe kon day mel ni lijjanti ko dana jafe waaye nag ndax loolu ba tey day taxit nag loolu rek day tax ba tey ñu bàyyi noonu rek maa topp rek li ñaan mel ni kanaara doomam wala ñun war nañoo taxaw nag résister ngir fexe indiwaat maanaam yar bi nga xam ni moom la ma ngi doon yar. waaw jërëjëf sëñ Cheikh <clears throat> yar boobu moom dañu ko indi rek wala jamono du jàkk xam nga tubaab yi léeg-léeg tubaab yu ñuul yi dañuy jéem a roy ci tubaab yi ab yar te tubaab yi yaruwuñ dafa am loi yu nekk ci seen kanam yoo xam ne loi la muy la mu leen di def dagg seen xaalis lay def moo leen tax di yaru waaye da ngay gis man man nga cee gis ko war otoom feu bi tàkk mu taxaw waaye bu feu bi tàkkee bu taxawee bu dawalee tuuti jënd biteelu sàngara naan ko loi bi terewut naan sàngara waaye yoon yu mu rëdd nañ ci jaar ci seeni doxaliin ñoom ma ngi cee jaar waaye yaruwut ndax li yar mooy julit bi topp njàngalem lislaam njàngaleem lislaam képp moo mën a yar julit bi tey nag njàngalem lislaam dafa tumurank maanaam dañ koo déjjiti ca reen ya daara yi wax naa la ko bu ñuy jox bu ñuy jox go bu ñuy yóbbu gone ci daara léeg dañ ko fa yóbbu ngir xel mu neex ñu gaaw génne ko dugal dugal école njàngum diine mi nga xam ne sëriñ bi dafa taalif bépp téere buy jàngale diine buy jàngale ay teggin e, e, ba ca gën a siiw mooy nax ju xadaayal xaaj e, njàngalem lislaam gone gi bu doonee gone buy lekk na tibb ci kanamam bu mu tibbi ca ca ca digg ba ni yoon sam doon yare ku mel ni ibnu abbas ak njabootam gi nekk biir këram yooye nga xam ne téere diine yee koy jàngale tey nag gone gi bu fekkee dafa judd rek tàmbali nasaraan dal nga xam ne kii moom programme ñu pour mu jàng diine te mu doon doomi kilifa ëllëg ñooña kooka euh, mbooloo ñooy jokk ci moom mbooloo moomu fu mu leen di jaarale du xam fu mu leen di jaarale loolu moo ne fi fi mu toll da dem ba royukaay fi mu toll da ngay am jafe looy roy looy roy kon loolu damaa jàpp ne moom eh, lu lu ñu gis la même mag ñi niñ daan yare ni nga ko waxee doo toog sa kilifa ci kaw euh, doo sol mbaxane di ko nuyu léegi jataay yi jataay yi kilifa yi boo ci demee léegi mënoo xam diw ak diw kan moo mag am na kilifa gu ma doon nettali ne ma gone la moom ay eh, ci noonu xam nga doomi kilifa kilifa la fii euh, ci aada law tasawuf sax xamul loolu moom waaw xanaa min jihatil ixtiraam ci côté waruma maak yooyu mu ne ma damaa toog koo xam ne maam la ci man maa toog sama mat laa mu dikk ma jóg may ko mu toog ma toog ci suuf ñu nuyoo toog di waxtaan ni ma sëgg ci suuf ah di waxtaan ak moom ba mu dem benn taalibe bu mag ne ma yow xanaa xamoo ne kii defut direct direct yow da ngaa def direct waaye moom defut direct xam nga loolu waxin la ci yoon wi waaw sëñ tubaa yow ci sëñ tubaa nga dem direct moom nag mbokki sëriñ bi ñooy ay ay ay kiyam te kii maamaatam la nga xam ne loolu bu ko déggoon moom xam ne léegi lii problème bu war ma gi mooy alali àdduna ak mbooloo ak yu mel noonu léegi nag loola taalibe yi moom rek lañuy ñuy gis koo ci gis rek kilifa goo ci gis rek dafa am ñum jaboote maanaam li ngay def rek moom la moom la moom la taalibe yi di gis loola nag moo indi jafe-jafe bu baree baree bari ci yàllum yar léegi critiquente bi kilifa day def dara ab taalibe taxaw critique ne nangam ak nangam li ñuy wax ci suuf yëpp loola ko waral yëf yi daal dafa rëb a jow ñi doon ay kilifa fañ leen waroon a yare léegi yarewuñ leen fa moo tax bu boobaa ñoo taalibe yi ak la ñuy doon daa looloo tax fi mu toll la waroon am am moo tax booy comparé diggante Cheikh Moussa ak ñi ñi maanaam ñi mu yaral boppam ak jamono ji doo xam looy <laughs> du niroo dara. sëñ Bass kon day mel ni euh, dañ ci déggee ni kon Cheikh Amadou Moustapha <coughs> ni ko fi maanaam fi ñu waay maanaam fi nit fi fi ko waajulam jaarale ci ab yar kon mel na ni moo jul résultat yi ñu gis yëpp ci yoon wi. day mel ni maanaam day mel ni résultat boo gis ci yoon wi rek xëy na yar guñ ko yoroon ak tegoon guñ ko tegoon ci aw yoon. cam ñu ngi caa tegu day mel day mel ni loolu moo ko jur ndax ñëpp a gis nañu maanaam ab yaram àggoon na ci ñi nga xam ay kilifaam lañ sax fare ko ci wetu jur da leen joxoon cër boo xam te bii maanaam cër booba jàpp nañu sax moom ñoom ëpp na ci ñoom ca lu ko waral moo yar yar leen guñ leen yar kon euh, xam naa fi ñu mujj rek mooy waaw kon bu ñu jëmee ba jamono ji ñu toll maa ñëpp gis ni ni mel kon lan lañ ci mën a jàngate maanaam lan lañ lan ngay dénk maanaam murid yi ak jullit yëpp sax ci wan yoon la ñu mën a mën a gën a jaar ba tegowaat amab yar ni ko mur yi njëkk amee woon wala na si Moustapha daan yare ngir ngir ñu mën caa roy maa nan la ñuy def euh, niñ ci mën a war a teguwaat day li ci njëkk mooy dafa defoon ci ñoom xam-xam yar leen nangu leen a liggéeyloo ñu sax ci lu baax te wattandi ko am po bi ci toppit mu yar leen ci ak doylu ndax li tax yar boo yar sa njaboot am solo dañuy euh, dañuy wax ne saa su ne nit mën na fee nekk léppam di dox waaye mën na fee jógee lépp taxaw ngir njaboot ga waaye nag boo seetee ci Cheikh Moustapha rek ngay gisee euh, dama koy wax ci suñ jotaay yu ne ne fi mu ne nii biñ fi jógee bi ñu ko yoonalee kuñ ne woon sëñ Mbacke Madina moomu Taïf doo ko gëm te bi ku sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma soxlaa da ko ko bàyyee sëñ Cheikh Amor ma ji toll ni moom it kër gu toll ni gi jàkkaarloo jumaa ji mu nangu ko joxaat sëñ Mbacke Madina kon loolu ab yar moo ko may Cheikh Moustapha te bokk yi gis nañ fu ne miiras andi fa lu ne te fii dara andiwu ko fi loolu la ko ko may nag mooy sëriñ bi la ma ne ndoonu li gën ci ndoonu li mooy njaboot goo yar mooy li ëpp solo lool yi nag mooy li yaatal yoon wi lool muy muy muy yar yar sa njaboot buñ demee nag ba jamono jiinu toll nga xam ne yoon wi liñ leen xamee woon mooy ab yar mu mel ni dafi bëgg a néew nga dégg gone goo xam ne gi ay nangami kilifaam ñi ngi ci kawam mu yëkkati kàddoom wax loo xam ne ay kilifaam ñoo ko waroon a wax kon ñu xam ne manque éducation ñëw na euh, sëñ Mbacke Madina mas naa nekk njaareem weeru feeñ am ñu ne weeru feeñ waaye daf ne leen leen ko fi waxe bu leen ko fi waxe la ne wax bu leen ko fi waxe ngir lan ngir weer bi moom yëpp ñëpp koy gis waaye nag gannaaw du kilifa yoon war koo yëkkati bu doon suñ jamono ji nag da ngay gis gone gi gën a ndaw ci kër ga jóg di waxtu kenn mënu koo téye kon nag sëñ bi li xamee woon yoon wi mooy orma ak ay teggin ndax daf sëñ bi dafa yoroon mag ñi ba kenn ku nekk nam daan waxee ak sëriñ bi sax waxtaan wa dalay neex ba buy wax doo bëgg mu bàyyi bu ñu la lay nettalee xisab sëñ ma sàmb boobu nga xam ne dañu wax ne rek maanaam dafa amoon koo xam ne daa jël yëfi jàmbur ñu di ko dàq gone yi yox waaye bi mu déggee cooli bay laa seex ma sàmb loolu lu mu doon daf ne ko jàmbu xeeb la ko yàlla wërsëgale mu doon sàkkoo dolli ko ci wërsëgu jàmbur yàlla natt ko borom fekk ko fa wutoon bantum nii maa ko ko tiimale mu yokk jéego ya di yokk kàddu ya rombatu tànk ñu di ko ci dimbale sëñ bi daa muñ ne ko sa waxtaan wekk tegginu mu mel ni bu doon léegi dangay jaar ci digg ba rek di wax la muy def lépp waaye orma jooju la Sëñ Tuubaa jàngaloon bañ man bañ mën a wax nañ daan wax bokk na ci orma jooju itam nga xam ne sëñ Modou Sa boo ñëwee ci ngor bàyyi ko ci boo ñëwee ci ak tab bàyyi ko fa ci koo xam ne kii rek àndoon moom ci dëkki kajoor yii rek ah ñu jox fa addiya ba at ma del see ndaw loolee dem fa ne sëñ bee ko yónni ñu jox ko lañ koy jox te fekk sëñ bi yónni ko ba Cheikh Moustapha demaate ñu ne ko diw de ñëwoon na fi bañ jox ko lañ ko daan jox def na leen salaaw maa ko yónni woon te aram se kon nag loolu li mu may rek mooy nit ki day wormal nit daana waxit mag ñi ne leen lii ma dénk muy doole Sëñ Tuubaa diisu ci tooñ diisu ci fay des ci dimbalee kon loolu it xamante ni bi ñoo bokk ci askan wi ñu ko bàyyi xel bu baax doole Sëñ Tuubaa diisu ci tooñ diisu ci fayu des ci dimbalee la nekkoon te bañ koy wax ay circonstances la woon yoo xam ni moo taxoon ñu wax ko ko am kàddu yu ñu teg ci gannaawam am mag mu ñëw ne ko boo waxoon tubaab bi mu wax ci ñoom ndax ñu ngi lay déglu dafa ree ne li ma yor doole sëñ tubaab di su ci tooñ di su ko a bàyyi xel na ko bokk ci askan war ko bàyyi xel ndax buñ seetee ñi lu fu bari faay na nag fu bari faay na dëgg la taalib yi am ñoo xam ñi ngi xët sart lool waaye am na ñu jël doole sëriñ tubaa ji itam di ci duma taalib yi nag loolu dañ koy bàyyi xel bu baax ñu ngi jëfandikoo doole ji ñu ngi jëfandikoo daraja ji ci lennat ci loo xam ne lii gisuñ ko woon ca mag ña kon nag loolu bu ñëwee war nañoo delloosiwaat li mag ñi daan def kon sëñ Cheikh bu fekkee amoo beneen laaj ñoo taxaw noonu. waaw jërëjëf sëñ Bass xam naa di sant rek di gërëm ci wax dëgg waxtaan wi day mel ni kon ku ko teewul rek da nga dégg kon yar daal ñu xam ni munta ñàkk waaye suñ suñu munta ñàkk day mel ni farata la ci ci ci ci euh, ci nit rawatina ab jullit ngir suñ borom addu gi mu ci addu waaye yonte bi alayhi salaatu ak mboolem borom xam-xam yi waaye bu dul loolu it mu mel ni yarit mooy tax nit ngir nit mën a jariñ ci àdduna faaw faaw moomu bi yar kon yaakaar naa mm, exemple yi nga ci joxe Cheikh Moustapha ni mu yaroo woon ak nii mu daan yare ba ci ay jëfam kon loola day mel ni lu am solo la lu jamono soxla la kon loolu nag tax na ren yi mu bokk ci li ñu indiwaatoon ci wàccaayu màggal gi. ngir mën a gën a roy Cheikh Moustapha ci ab yar waaye ni mu doon yare ak njabootam waaye rawatina taalibe yi kon sëñ Bass ñoo sant baax baax di la gërëm. sëñ sëñ Massamba dafa mel ni maanaa xëy na yoon wi nga xam ne dañ caa war a jaar dëgg-dëgg dañ ko wàcc ndax day mel ni kon njàngum kese taxut amub yar waaye njàngalum diine mooy may ab yar ndax Cheikh Ali mi ngi wax naan boo demoon ba jeexal fànn yëpp it nag cee boobu yar yaa ko xamul dara yéen a yem dañ daan wax sax naan fi ne maanaam gone du nekkut ci at waaye mag mi nga xam ne sax am na juróom-ñaar fukki at ca xamul dara ci diine gone la ndax maanaam du jëf jëf juñ gërëm kon mel na ni niñ ko jàngatee euh, li ko problème bi dëgg-dëgg li ko waral mooy wàcc aw yoon daal waaye nag ma Massamba dafa mel ne jotaay bi li tax ñu def ko dëgg-dëgg mooy ban solution lañ mën a def nag maanaam nan lañ mën def ngir am solution moo tax ñu jël exemple Cheikh Amadou Moustapha ci ni mu daan yare kon lii jamono woote woo nañ ñëpp gis nañ ko waaye léegi nag wan yoon lañ mën a def nag ngir mën a delluwaat foofa xam naa incha allah rek boo defee loolu mooy ànd ak kaddu yu mujj incha allah. yoon wi moom wenn rek la mooy jàngal gone yi éducation bi Serigne Touba njàngaleem Serigne Touba njàngaleem Serigne Touba mooy sunna ñoom Cheikh Mamadou Moustapha ak mag ñi ñoom ñëpp dañoo jàngoon njàngum sunna jëfe ko mooy njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa ni mu leerale alquran alquran moom dafa dikk doon téere boo xam ne ak njub la day wane aw yoon fa yonent bi jaarale saxaaba yi foofu la Serigne Touba jaarale mag ñi Cheikh Moussa modèle boobu na exemple boobu la joxe ñim yar ñëpp foofu la leen jaarale bu ñu ko bëggee tamit dañuy wëlbatiwaat di dikkaat ci njàngaleem lislaam njàngaleem lislaam képp moo ñu mën a jox valeur yi lislaam valeur yi lislaam mooy ab yar kenn mënta am yarub diine bi ñu bëgg bi Sëñ Touba bëgg bi Cheikh Mouhamadou Moussa bëgg te jàngoo diine mënta wala bu loolu boo ko defee tamit eh, xam naa eh, mayu yàlla lay doon daal laa ko mën a jàppe gone yi nag dañu leen a waajalut ci côté boobu kon eh, bu ñu bëggee bu ñu jàppee ne mën nañoo amub yar wala mën nañoo am solution te njaboot gi xamuñu diine loola moom mooy ak waru dëgg mu mooy nax suñu bopp te loolu moom doxuñu sax jëm ci kon pour ñu man koom faaw ñu dox jëm ci njàngaleem Serigne Touba téeréem yii njàngaleem lislaam ak fu mu mën a jóge te njàng moomu la ñu mën a jàng ba mu leer ci suñuy bopp ñu door a am yar bi Cheikh Mamadou Moustapha bëgg ci loolu buñ ko defut mënuñu ko am mënuñu ko am ndax bari na ci loo xam ne dañ ko tudde yar léeg-léeg te dëgg-dëgg mag ñi sax xamuñu ko woon yoon yu bari na ay idaafaat yuñ ci yokk yoo xam ne bokk ci at yu néew ci ginnaaw rek mag ñi xamuñu ko woon waaye lay yar dëgg-dëgg mooy sunna sëriñ bi sunna la ñage woon këram moom la dénkoon boroom daaru la yonent bi jàngale képp ci sunna loolu nag nit mënta yarute xamu ko. ok jërëjëf sëñ Bàcci wax dëgg kon leer na lool kon mel na ni dégg demi waxtaan wi ah, jubluwaay bi dëgg-dëgg mooy nan lañ mën a nan lañ mën a yoro mën a royaate ci njàngaleem Cheikh Amadou Moustapha yaakaar naa nag ngir man caa amub yar kon day mel ni amul benn solution bu ñu mën def loolu delluwaat ci njàngaleem Cheikh Khadim ca njàngaleem Cheikh Khadim ko waxee a mooy sunna kon faw ñu jàngalaat ndaw ñi diine yar leen ci diine jàngal leen diine kon loolu dong lañ mën a def ngir man ngir mën caa delluwaat kon Cheikh Amadou Moustapha exemple la ci yar suñ bëggee delluwaat nag ci moom faaw rek ñu delluwaat njàngam Cheikh Khadim njàngam Cheikh Khadim nag mooy sunna waaw kon suñ bés kon xam naa jërëjëf ci jotaay bi kon xam naa dañuy jox rek nga joxe say kàddu yi ngay tàggu ak mbooloo mi incha allah. waaw jërëjëf sëñ Cheikh ñu ngi sant sëñ bàcc bu baax ci jotaay bi ak bokk yi nga xam ne ñooy jël si waxtaan wi. xam naa bunt bii sëñ bi waxoon léegi rek muy fi ñu mën a delluwaat rek mooy xam-xam ak jëfee akub yar wattandi ko po loolu mooy mooy solution bi nga xam ne ci la mag ñi nekkoon ndax amuñu woon jotuk fo léegi nag ku nekk ci lu baax lu ne foo na la ko yàqate lu baax ak lu bon mënuñu ànd mukk ñu bàyyi ko xel bu baax kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla defal ñu tawfiix ci barke Cheikh Mamadou Moustapha asalaamaaleykum wa rahmatullah ok waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëñ Bass kon yow sëñ Massamba xamaa jox la kàddu yi ngay tàggut ak mi ci jotaay bi incha allah jërëjëf sëñ Cheikh eh, bég nañ ci jataay bi lool ndax ab jàngalekat moom boo ko woowee ci mbirum éducation wàllum yar ak lu ca jëm ak ni mu yitteeloo woon sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké eh, day doon lu ama am solo eh, yar nag ni ma ko waxee rek sëñ Mountakha Bachir moom da cee joxe na ma ay ay namaadi ju bari rawatina bii di université bi université bi yar dafa bari ay façon waaye dafa am boo xam ne comme ni ma ko waxee rek. mooy e, teg jullit bi ci aw yoon muy jàng jàng buñ ko waxee jàng lislaam njàngum sharia mooy tax jullit bi mën a xam li ko war a digganteem ak boroomam li ko war a digganteem ak i moroomam muy moroomi jullitam e, li ko war a diggante ak ñeneen ñu dul ay jullit lislaam dafa jàngale lépp ba wut dara moo tax mënuñu koo jéggaani feneen mag ñeen jéggaani ko feneen furut ci alxuraan ak sunna waaw loolu rek <laughs> alaa xaal moom la ñuy tàggatoo di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiq eh, ak yërmandeem eh, jërë ngeen jëf barakat Cheikhul Khadim kon jërëjëf sëñ Bàcci ñoo ngi sant baax ci waxtaan wi sëñ Bass yow jërëjëf kon mbooloo mi ñu doon sant kon li mooy plateau bi ñu andi woon ci diggante yar ak Cheikh Amadou Moustapha nan lañ ko yare woon ak moom nan la yare woon ak njabootam ak jamono bi toon nan lañ ci mën a ay bind kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu